que division soit une APR ba pare est-ce que division amul est-ce que division bobu am sax mo waral défaite bi metti bi parce que tay mënoon nañu xaar deuxième tour comme ni nga ko waxee mais deuxième tour té da ngeen jegewul sax yéen yéen ci 30. wa mais xam nga ah, li wax man je ne vois pas de division au sein de l'APR xam nga la gisoon manque d'implication peut-être des gens qui ne se sentaient pas être impliqués qui se sont barricadés parce qu'en politique aussi parce que c'est euh, ce qu'on a remarqué parce politique aussi l'union euh, tout ce qu'on fait contre toi c'est euh, tout ce qu'on fait derrière toi c'est contre toi c'est ce qu'on a remarqué lors des des des des des du campagne parce que loolu nak kenn nak le nak il devait y avoir un un bulle il devait y avoir des concertations internes yo xamanteni maintenu le staff du candidat ñoo ci nous ñoo ci pour que vraiment vraiment même ko xamantene ne mer na sax quel que soit mu nek Sénégal nek diaspora fu mu mënti nekk ñu fexé këyir waxtan ak mom tatagal ko intégrer ko ba mom mer bi mu yoron jeex man j'ai toujours soko gi xolé dans les réseaux sociaux j'ai toujours prôné le calme la retenue le calme la retenue notre but notre objectif c'est d'élire un candidat qui a été choisi par le président Macky Sall si nous perdons les élections aujourd'hui guerre de positionnement yi boobu day jeex fi soo pouvoir protocole jeexna garde corps y euh des détails avec ak ah donc on ne devait pas en arriver là. et malheureusement on n'a pas tiré les leçons des autres élections qui sont passées. Et voilà, la chose inévitable est tombée entre nos épaules. Et maintenant, il faudra que nous portons le flambeau de, ce, de cette opposition et que nous acceptons notre sort et nous nous engageons à faire de la politique dignement pour pouvoir reconquérir le pouvoir. D'accord, donc pour le chapitre boobu noonu te it Amadou Ba président Macky Sall moo ko tabb. Mhm. tabb ko au au au au nom de tout képp koo xamante ne mu ngi yeewoo APR ak Benno Bokk Yaakaar. Mhm. yéen yéen a waxtaan seen biir ngeen ñu tabb Amadou Ba. Mhm. tey defetu Amadou Ba président Macky Sall. bon c'est la défaite de de toute la coalition Benno Yakar. Yaakaar. d' la défaite de toute la coalition Benno Yakar. Yaakaar et président Macky Sall mérité wu doon défaite boobu noonu. Euh, te man ñi may dégg ñuy attaquer président Macky Sall la plupart ñom ñep c'est des lâches képp ku attaquer président Macky Sall ci défaite bi tu es un lâche. On a vu Omar Sow qui est sorti pour dire que Macky a, a trahi Amadou Ba depuis lors. C'est lui qui a trahi Macky Sall Omar Sow Omar Sow depuis que président bu mu yéegee ba léegi bugguma wax ci nit sax parce que man lool du sama fort man le ma ñor moy né lepp lu may def dama koy def face to face ak yow. D'accord. gënu mériter les jeunes qui n'ont absolument rien Pékin, Bob mooy dëkk yëmbal boobu je connais des jeunes ont xamante depuis 2008 ñu ngi ci parti bi amuñ ci dara te dañoo toog militer gis naa ci ay jeunes yoo ont ne dañ ciy def ay choc ci politique def ci ay accident am des problèmes lombaires Ni am ay problèmes. articulation ni am ay leneen problème am ci décédé amuñ ci dara Moi, mu nekkoon ministre conseil chargé des affaires de la jeunesse moi, moo munoon chargé des affaires de la jeunesse tey jeunes yi. Mhm. am na jeune yu bëri yoo xamante ne waroon na mën a permettre ñoom ñu amoon accès ci président Macky Sall te moom defu amaan na defu ko je ne sais pas ndax def na ko ndax defu ko amaan na mënoon na am wóoruma waaye li ci am solo. Mhm. soo nekkee ministre chargé des affaires de la jeunesse au niveau de la présidence ministre conseil war nga di waxtaan ak ay jeunes yi. Mhm. man mosuma fekkee en tant que jeune ak ku ma gën a engagé ci biir alliance pour la république amul. bu ma gën a engagé ci biir alliance pour la république amul. réunion wala aspect réunion boo xam Defna, def na ko né jeunes yi dama bëgg ngeen dem rencontre président Macky Sall té honneur bu du honneur ji né président defal na ko ko ordre commandement bi il a été honneur l'année passée nekk ministre conseiller yor sa salaire yor say privilège tay do xaar ba àlla bo président wacc nga koy saga? ça c'est indigne c'est une indignité démesurée c'est une indignité démesurée un manque de respect notoire et lolo, je le lance un appel solennel à la retenue de savoir raison garder parce que rien n'est nouveau sous le soleil on se connaît nous tous nous nous connaissons te koo gis xam nañ capable ak capable mais koo gis aussi xam nañ loo def ak loo deful koo gis xam nañ li nga mën ak li nga mënul. mais moi, jot de révélation yu mu def dem na ba sénégalais yi xaw koo gëm ne Macky Sall moo nekkoon euh, directeur campagne yu xam nga xam nga mais Macky moo leen jox ay oto yàqkat moom yàqkat moom. mais gis nañu ak ak deux jours avant les élections xaw ma ci ci ginnaaw. gis nga man président Macky Sall. Hmm. ci xolam bu set. ak nit ku baaxee noonu empathie bi allocentrisme bu mu am sens républicain bu muy doxee non soo koy collé ci yenn motif yax booba yow doo nit quoi président mérité wut yooyu noonu président Macky xam nga lu mu la hmm. ovation congratulations félicitations remerciements Mom la mérité Mom la mérité pour toute la patrie pour tout le Sénégal Mom la mérité Lolo tax man mi sama jëm de dama ne fekkee ne APR dañu nar demee ni man dinaa créer loo dama koy président Macky Sall parce que nak Macky président Macky Sall c'est un modèle d'engagement c'est un modèle de militantisme c'est un modèle de patriotisme c'est un modèle c'est un modèle de politique sociale et de politique économique Lum jaay sénégalais ak fum mu Sénégal tay maa ngi xaar ñi ko wuutu fa Sénégal ci lañu xamé parce que comparaison pour nga def ko rek il faut nga am des éléments comparatifs té maki est incomparable à ses prédécesseurs et à ses successeurs et il le sera pour toujours pour tout ce qu'il a fait pour le Sénégal et surtout le bilan immatériel qui consiste à préserver la paix et la sécurité du Sénégal Sénégal qu'un pays qui xamante ne attaque bu attaque Guinée pour déstabiliser le pays et le président a pu tenir le drapeau du Sénégal le sceau du Sénégal gardez le gardez le gardez le pour denkaan jox ko ki nga xam ne donc que nous ne soyons pas de mauvais perdants. d'accord suñ pertee nañ nangu ne yàllay joxe nguur yàlla waxoon ne fii lay yem fii lay jeex mm. gis nga am yàlla yàlla yàllay buur te li fi nekk euh, comment dirais li fi nekk yàlla jox ñu ko yàllay joxe nguur ku ko neex jox na ko joomaay ngir yàlla war a su nañ bàyyi di attaqué Macky Sall Macky Sall gor la doomi gor la gore na ñongal na suñu ressource tey suñu waxee ne budget Sénégal bu ma ko président RT mu nekkoon à 2000 milliards ba mu acté mu ngi koy conséqué à 7400 milliards loolu du caaxaan de liquidité dans les caisses de l'État <laughs> loolu du caaxaan na bay yi bay caaxaan quest po képp kuy attaque président Macky Sall maa lay ñaan nga tek sa baram bañ nga tek sa loxo nga baisser les armes président honneur rek la la la la ñuy délé ko ko délé ko ñukal té képp ko ko attaquer nak xamal né sa manou la ci bay mm, aussi bien que dans le des des gens de l'opposition nous sommes opposants opposant que nous sommes ci pouvoir Qu'est-ce que je veux ak man traité Maxel avec décence et dignité Moi, je te traite avec décence et dignité soit traité avec indécence je te avec indécence les mots utilisés j'utilise les mots les plus coriaces les plus terribles et les plus puantes pour répondre à tes allégations bëgguma qu'on arrive là man kenn la gëm ci politique parce que kooko ma dugal ci politique. kookoo tax may def politique. kookoo tax ma dugg ci politique parce que sama domaine nekkul doon domaine politique mais président moom laa gëm vision laa gëm ak incarnation ak charisme ak ni muy doxalee moom laa gëm ci loolu tax ma nekk ci li ma nekk. képp kuy def leneen nak xamal ne mu nekk en en avec le président ba maa ngi yow dañuy jàkkaarloo ci terrain bi te man du ma ragal. d' accord yaakaar naa leer na donc bu kenn laal président Macky Sall bu ko kenn jege sama nga nee na bu kenn. Kendeng-kendeng baik bersama kesalmune sejam. people